sama xel dal na xel dal na Mbàkke sant naa lu ma sandoon rek yokk naa ko parce que ñii ma am sama kanam tey leer na ma ne ay kilifa rek laa am sama kanam ñii ma indi ay kilifa lañ waaye ay kilifa rek ñoo leen dalal kon rafet nañ njort Mbàkke di la wax ni bu yeboo sa xel dal man du ma yox yox man man man ñeme naa fi ma jëm ñeme naa fi ma jëm parce que ci parti laa nekkoon xam nga 14 ans de compagnonnage c'est pas deux jours. te ñu def fekk am na nag moom 14 su ma demee ba ni ko fi ñukk bàyyi ko ñëw ànd ak yow am na lu tax kon ma lay wax ni na sa xel dal coow lii nga xamante ni ñu ngi koy dégg ci opposition bi ñuy mbele mbele bi coow ak yi nii bu mu la yëngal sax ñu jëmul fenn lañu réew mi mënuñu koo yëngal. ñun ay taalibe sëñ Touba la dëkk bii di Touba xam na li nga xamante ne moom lañu fi nekkee ay jeunes lañu di œuvrer ci entre aide ak social ak développement. donc bu ñu gisee ku li ni yow ngay jàppale président Macky Sall comme ni ko suma frère Khadim si la waxee euh, le président Macky Sall bu ñu waxee dëgg te yàlla tax billaahi kenn du ko critiquer ci bilan jamais gisoo kenn koo xamante ni ci bilan la koy critiquer coow rek lañ koy critiquer dafa jàpp gii dafa kii te réew mi nag bu ñu waxantee dëgg te yàlla rek tax ku fi jëlul duñ la jàpp bu ñu waxantee dëgg nji nga dégg ñu leen téye coow lu bari yii yëpp dañ leen épinglé ñu jàpp leen kon na sa xel dal di la wax encore une fois ni ñii ma indi ñii ma indi daa am loo xam ne dama ko waxtaan ak ñoom xëy na bu lii amul doo xam semu xëy na ndax ñaar nit ak ci ginnaaw am ñetti nit daanaa ñëw rek ñuy toog di waxtaan di échanger waaye barke Serigne Touba laa la la dërëm ba ma ko naree lekk bàyyi ñii yàlla ma yóbba laa bugguma dërëm lu ñuy def sans poche bugguma dara lu ñuy def sans poche mais ñii moom ku leen ku ma àndal te amaloo leen njariñ billaahi ma ni la fa ñëw bàyyi la parce que daam lu ñu ma toppee daam loo xamante ni moom la ñu toppee dañuy dimbalante xam na wax naa ni la

ndax jii ma àndal li nga xamante ni moom lañu àndee ak man su ma gisee ku mel ni yow tàllal ma loxo dinaa rafet njot dinaa ñëw kon encore une fois ñu jotaay bi yàgg na man jotaay bi jotaay sant rek laa ci def jotaay yi wane ñi nga xamante ni ñoom laa àndal di sant encore une fois sama mbokk yi sama dëkkandoo yi man ñii aw ma lu ñoom. am mbégte loolu nag ndax bisu tey bi dafa mel ne ay mbégte la dajale. mbégte yooyu ci jiitu mooy taxawaayu sunu rak di sunu xarit di honorable dem jàpp Gakhar Sadaga te ku ne xam ci tolof tolof yi xam ne ci la nekkoon tey daje ak bis bu njëkk a génn dikk te ak jàmbaar rek moo ko fi indi li mu toogee nee na ma tàggu ma ndax su ma tàggoon nag may tëye wax na dëgg waaye Serigne Laat bi ngi lay ñaanal yàlla mu delloo la jël sa sago lépp loo xamante ni mënoon nga ko rek nga mën ko raw ndax loolu mooy li nga mérité mooy li nga yeyoon ndax sa njabar ak sa baax lii natt la bu la suñu borom teg waaye li ma gën a yéem ci yow mooy natt bi. rek di sëbi ko am dara Sëriñ Laat bi taxaw bokk na bii mooy ci lépp yu gënoon la kon honorable yëkkati naa seen teg ko ci loxo ànd ngeen liggéey liggéey bu rafet ba yàlla na ñu maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm ndax am nga am conviction waaye dina sant sama côté boobu ndax nee nga ma ñu bëree bëri ni ñu may woo man man yow laay liggéey ndax yàlla ci biir te Touba moo man de lu moom la jiite lépp lu muy Touba moo la kon maa ngi leen remercier ci confiance boobu di la xamal ne danañu ànd liggéey liggéey président Macky Sall mu am deuxième mandat waaye itam liggéey dëkk bi ba Touba ki nga xam ne moom la ñuy rêvé muy Fawzeyni li nga xamante ne bii keroog sëriñ Abo moom la wax fële ci maanaam daal suñu borom defal ko ñu bëri bi ñu nga xamee ñooy defal sëriñ bi li nga xam ne moom la wax. waaye ñu sant ñëpp nañ di gërëm ñëpp ndax tey mel na ne parti bi ñëpp ndaje nañ. on a vu lépp nii sànq ak bu ngeen di taxaw ñoom ba suñu président Moustapha Diagne. ndaw ñi kenn desul waa jeunesse en marche. ñu ngi fi ñoom itam maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen yóbbal ak ki nga xamante ni mooy son excellence Bada Diakhaté moom itam di suñu nijaay di suñu xarit dem sama kër la jëlee tisbaar te loolu mooy këllër yi nga xam ne moom seqoon ak soxna si wéyal ko ci ñun kon Mame Diarra yaa ngi mboolem ñi àndal maa ngi leen di sant di leen gërëm seen taxawaay les sentinelles ñoom itam ñi fi jëbbal ci mooy tax xaar xam ne mooy mooy tax ñu ko fantal nañ ñu ko gërëmal moo tey ñu ngi ne taxaw suñu ji jabar yi nag ñoom moom jaww ñoom soxna Fatou maam say dem na léegi soxna ñëw mën naa ne mbàkk bi ñëpp daje nañ moom moom diine ak yar jërëjëf jërëjëf sëñ sëñ dëkk ñàkk foog naa bu mel noonu du du du du ci kenn kon daal suñu xol sedd na guy ci yéen ñëpp lii mooy li nga xam ne moom lañ bëggoon parti bi tam et yéen ñii bu bii bi parti yéen fi nekkoon dem yéen fi nekkoon barki dem ànd ak président Macky Sall ak conviction d'